internet sans limite TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat bu baax a baax seen biir émission les buzz alors comme promis les actualités les plus marquantes de la semaine moom laay faral di indi rek di leen ko leeralal ba mu leer naa ñi alors ñu laati koy dooree ak communiqué bi nga xamante ni ministre bi yor wàllu wérgu yaram fii nii ci réewum Sénégal daati na koy xëy fësal tey ñu jàpp rek ni tey ci àjjuma ji 16 octobre 2020 euh, lu toll ci 1084 tests réalisés 20 pour cent les cas positifs sont répartis comme suit cinq cas contacts suivis par nos services un cas importé enregistré fële nga xamante ni moom moo di ca aéroport Diass quatorze cas issus de la transmission communautaire répartis entre euh, Tivaouane Dakar Plateau Almadies Jaxaay euh, Kaolack Mermoz Parcelles Assainies euh, Popenguine Rufisque Thiès ak fële nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Ziguinchor 67 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 6 cas graves sont pris en charge dans les services d réanimation un enregistré ce jeudi 15 octobre 2020 l'état de santé des autres patients hospitalisés est stable ñu jàpp rek ni à ce jour mi 15 368 cas ont été déclarés positifs dont 13 700 cas guéris 317 euh, décédés et donc 1346 sous traitement loolu la ministre bi wala yor wàllu wér-gi-yaram daati xëy jébbal tey ci seenu communiqué euh, ci euh, feebar bi nga xamante ni moom moo di feebaru mbas bi ñu daati dugg ak yéen ci première actualité bi nga xamante mi ngi def buzz bu baax ci réseaux sociaux yi nekk benn panne réseau social boo xamante ni daal dinañ koy nemmeeku mu nekk au niveau mondial euh, di li nga xamante ni moom moo di Twitter moom moo xëy nag démb ci alxames ji daati amal ab euh, commencé lu jàpp ci boor yi 17h40 ci waxtu woowu nag la ko utilisateur yi daati ràññee mu mel ni rek daati njàqare actrice ñoom ñi nga xamante ni ay adepte lan ci Twitter bi tàmm di fa def ay message wala di fa def ay commentaire mu nekk benn panne boo xamante ni ñu jàpp que au niveau mondial euh, du benn dëkk rek la yam ñëpp la boole ndax li nga xamante ni ñoom ñoo di waa Twitter sax euh, daati nañ koy bind ab communiqué sax daati koy jébbal utilisateurs yi pour di leen xamal rek ni panne bi du ci ñoom waaye ci ñoom la ñoom ñoo am ay problème technique ñu daati dugg ak yéen ci beneen actualité bi xewee fële nga xamante ni moom moo di euh, ca Mbàkke ca tribunal Diourbel di ab Mbàkke Mbàkke boo xamante ni moom moo yóbbu ci yoon ki nga xamante ni moom moo di doomam bu góor ginnaaw bi nga xamante ni da koo di ko menacé ba daal di koy saccagé kooku nag mi ngi wuyoo ci euh, turu euh, Serigne Sidi Mohamed Mbacke moom lañu yóbbu fa li nga xamante ni moom moo di fa mbaxana doone benn euh, tribunal grande instance de Diourbel par son père Mbacke Mbacke ginnaaw bi nga xamante ni da daati nañ koy interpellé mu daati yàq oto papam daati koy menacé de mort ñu daati déposé ab plainte boo xamante ni nag dañ ko mujjee téye fa li nga xamante ni moom moo di ca tribunalu Diourbel waaye moom nag la mu xamle rek nee na ba muy def waraloon mu doon menacé papaam ba yàq li nga xamante ni moom moo di otom noonu beneen actualité bi ci topp nag actualité politique la ki nga xamante ni moom moo di le président Macky Sall moom la soxal di ab partisan boo xamante ni rek mi ngi wuyoo ci Aliou Dembourou saw moom nag ab député la fa la nga xamante ni moom moo di ca assemblée nationale moom nag moo njëkk génn daal di def premier dérapage verbaux ci li nga xamante ni moom moo di troisième mandat président Macky Sall dañu nemmeeku ab vidéo boo xamante ni mi ngi doon circuler ci réseaux sociaux yi muy inciter rek euh, population bi di insister ay mbokk yi nga xamante ni ay euh, pël lañ euh, pour képp koo xamante ni dafay opposé wu ci li nga xamante ni moom moo di troisième mandat Macky Sall nañ génnee li nga xamante ni moom moo di jaasi yi daal di koy xeex mu nekk loo xamante ni rek ab plainte daal di na koy viser grâce à l'initiative de l'ONG Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine waa FRAPP ki nga xamante ni nag moom moo di seen porte-parole ñu gën ko xam ci Guy Marius moom nag moom moo daal di déposé ab plainte rek Euh, pour yoon daal di euh, teg loxo ki nga xamante ni moom moo di Aliou Dembourou Sow parce que li nga xamante ni moom la génne wax rek euh, buñ ko jàppee dafay mel ni incitation la violence ci population bi ndax ginnaaw bi nga xamante ni ay coow yu bari daal di nañ koy nemmeeku ci troisième mandat ki nga xamante ni moom moo di Guy Guy Marie Sagna waaye rek mu mel ni am na ñeneen ñoo xamante ni feelu nañ ko ci wet gi gis nañ ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Diakhaté daal na ci génn àddu ci coow loolu ki nga xamante ni tamit moom moo di na Bocoum Euh, daa tinay saisir procureur ak li nga xamante ni moom moo di assemblée pour ñu condamner propos yi nga xamante ni rek Aliou Dembourou Sow euh, daa na koy génne mu heurter conscience euh, ñu bëri ci coow loolu nga xamante ni moom moo di troisième mandat am na ñeneen ñoo xamante si sax am na ñeneen ñoo xamante nii sax ñu ngi ñaan ñu teggil ko li nga xamante ni moom moo ndombal tànk yoo xamante ni jox nañ ko ko fii ci réew mi ci assemblée boobu nga xamante nii rek ab député la fa ñu daal di jàll ci actualité people li ci gën a fës nag bokk na ci euh, Pendo Guissé ñu gën ko xam ci yaama moom nag euh, site yëpp daal di nañuy xëy bind rek daal ci xamle li nga xamante ni moom moo di ab divorce am euh, ginnaaw bi nga xamante ni sëy na lu toll ci 9 mois moom Pendo Guissé nag daal di nay divorcé ak ko nga xamante ni moom la doon sëyal nekkoon ab ñaareel amoon li nga xamante ni moom moo di wujju tubaab moom Pendo nag daal di nay divorcé toog rek di xaaraat leneen loo xamante ni rek moom moo gën ci moom. soxna Aida Diallo moom nag mi ngi continuer di def bës bu baax a baax ci réseaux sociaux yi ginnaaw bi nga xamante ni def na ak màggalam gu am solo euh, moom nag daati na ay taalibeem daati nañ koy génn di fësal li nga xamante ni moom lañ ko offrir euh, benn bokk na ci li nga xamante ni moom moo di ab 4 x bu ñu estimé boo xam ne xayma nañ ko muy jar ci 270 millions ak benn euh, villa boo xamante ni lu toll ci 1500 mètres carrés la maanaam kër gu bakkane ak oto bu bakkane la ko ay taalibeem daati jébbal comme addiya mariage à coups de million Diop Khass et Niass Ndiaye menace la jeune génération mu nekk ñaari mariage yu célébrité yoo xamante ni yaakaar naa def na à la une de journaux euh, xët boo ubbi rek ñoom nga fay njëkk fekk ki nga xamante ni moom moo di Soumboulou Bathily Ablaye Diop Khass ak Niass Ndiaye ak ki nga xamante ni moom moo di Mbathio Ndiaye amal seenu mariage suba ci samedi bi euh, mu mel ni rek les jeunes fii et les garçons yi nga xamante ni ñoom célébré guñ li nga xamante ni moom moo di seen mariage rek euh, dañoo jàpp li nga xamante ni moom la Ablaye Diop def ak ñas nekk loo xamante ni rek da leen contrarier ak li nga xamante ni moom la religion bi waxoon maanaam boo amee ñetti junni rek war ngaa mën a am li nga xamante ni moom moo di soxna waaye bu demee ba yokk li nga xamante ni moom moo di dot bi boole ci ay cinq ba 10 millions ak li nga xamante ni moom moo di ay matériel ay téléphone yoo xamante ni boo ko estimé euh, xaalis bu bari lay doon ba ci ay bague en jaman ñoom jeune génération bi dañoo jugé que ni lii nii instant dañ leen nekk di contrarier parce que dafa mel ni day def ci bopp xale yu jigéen ni euh, war nañoo mën a dépasser niveau bi nga xamante ni euh, ñoom Mbathio ak ki nga xamante ni moom moo di Soumboulou euh, ñaane na leen si ñu nekk ay soxna. nouvelle distinction Youssou Ndour élu membre de la Royal Académie euh, musique Suède de musique de Suède moom nag la ñu jàppaatu une fois daati koy enrichir li nga xamante ni moom moo di ab CV. beneen distinction boo xamante ni waa Académie Royale musique Suède ñoom ñoo ko daat koy élire mu bokk rek parmi les membres les plus prestigieuses mu nekkaat ab prouesse boo xamante ni rek Abdou Mbalax daati na koy wanewaat euh, au niveau international place bi nga xamante ni euh, a baax mu nekkaat une euh, une nouvelle récompense boo xamante ni Youssou Ndour daati na ay parcourir yu bari yoo xamante na fa defal li nga xamante ni moom moo di ay prestation ñu jàpp rek ni le leader du super étoile daati nay nekk ci musique sénégalaise li nga xamante ni aar maanaam occupé place très important boo xamante ni euh, au niveau international ñëpp ko fay ràññee. conformément à la décision du xalif général des Tidianes ki nga xamante ni nag moom moo di Aziz Ndiaye daati génn ci l'observateur di xam ne rek ni du dem fa li nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Tiwaawan di fa célébrer li nga xamante ni moom moo di gàmmu gi ginnaaw bi nga xamante ni xalif général bi daati nay génn rek que ni moom bii pa dafa tere lépp loo xamante ni rek rassemblement la ak festivité fa nga xamante ni moom moo di ca moom moo di ca Tiwaawan moom Aziz Ndiaye nag ginnaaw bi nga xamante ni daan nañ ko ràññee fa li nga xamante ni moom moo di ca Tiwaawan ci lu baax baax lépp loo xamante ni da ko fa daan def di yóbbu ay nag ay xar ak ay euh, bëy fële ni moom moo di ca Tiwaawan pour ñu daati célébrer gàmmu gi rek ren nee na du bi nga xamante ni xalif bi daati nay génn euh, joxe ay euh, ndigal ñoom nag nee na dañuy conformer wu ci recommandation yi nga xamante ni xalif bi daati na koy wax ba pare daati koy jige pour bépp orientation rek mën leen xamal ci yan anam la ñu war mën defee li nga xamante ni moom moo di gàmmu Tiwaawan seen kër moom nag nee du bouger du dem fenn fële nga xamante moom moo di fiefam ca géejawaay fa lay daati toog rek waaye du def festivité du def la tamit li nga xamante ni moom moo di rassemblement daati fay organiser ak gàmmu jàmm ak salaam encore une affaire de mœurs qui risque de secouer la toile ñu daal di démanteler benn réseau lesbienne boo xamante ni rek ay mineurs ñoom ñoo ci nekk doon li yëngu ci li nga xamante ni moom moo di production des séries pornographiques li ko fësal nag bokk na ci ab xale bu jigéen boo xamante ni ñenn ci ñoom la woon moom moo demoon fële nga xamante ni moom moo di division des cybercriminalité di fa jébaane rek ci koo xamante ni nee na dafa yoroon ab vidéom daal di koy def li nga xamante ni moom moo di ab lomotif fësal ko ci réseaux yi waraloon mu ñëw rek di porter plainte kooku waaye rek ba ñu nangoo li nga xamante ni moom moo di ab téléphone am dañ daal di fekk ay vidéo yu bari yoo xamante ni moom ci boppam moom moo nekkoon productrice euh, pornographique bu mag bi maanaam ay xale ñett ci ay actrices yoo xamante ni ñi ngi âgé lu toll ci 15 ba 17 ans ñoom la daan jël di leen use maanaam daal leen di da leen daan utiliser tourner li nga xamante ni moom moo di ay euh, film porno yoo xamante ni dañ ko daan envoyé ay clientam masculine yoo xamante ni euh, plus de 50 mille francs la ñu daan amee li nga xamante ni moom moo di vidéo yooyu ñoom ci xale yu jigéen yooyu nag bu ñu leen daan gis ci vidéo yi nga xamante ni moom lañ fekk ci téléphone ndaw soosu nga xamante ni moom moo jiite woon loolu noonu yëpp euh, moom nag dañuy gis li nga xamante ni moom moo di ay vibromasseur ak ay sextoy moom lañ daan utiliser euh, pour tourner rek bépp film boo xamante ni suñ paree dañ koy daal di jaay. Internet Sans Limites TV li ñu leen indiloon tey seen émission les buzz du web di leen joxaat dig daje semaine prochaine yeneen actualité d'ici là portez-vous bien et